bu dee gan nga ci suñu kër gii di Faaida TV bala ngay seetaan vidéo bi ñu ngi sàkku ci yow nga abonné te bul fàttee bés ci cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ci kër gi nga mën cee jot bul fàttee j'aime tey partager suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu wasallama ala sayidina wa shafiina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain bokki téléspectateurs yu Faaida TV yéen ñi nga xam yéen a baaxoo ànd ak ñun ci suñu soti di ramadan amaan nañ mbégte ci nuyu leen ci kër gi di leen wax yéen ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaye bala ñuy wéy ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax ci rupture bi nga xam ni moo am ci statut di Ramadan ci deux jours yi muy vingt quatrième nuit bi ak vingt cinquième nuit mu mel ni ay xat-xat la woon ak ay wax dëgg yàlla euh, empêchement wu jamono rek moo waraloon ñaari statut yooyu enregistré wuñ ko ñu koy jégalu bokk yépp rawatina ni nga ñi nga xam ni nag ñor gum leen ñor àgg na ci ñu woo ñu téléphone ñu envoyé vocal. doon laaj lu waral euh, maanaam taxawaay boobu ñu leen di xamal du woon dara problème technique la woon rek ak xat-xati jamono waaye incha allahu taala ñu fas yéene continuer ak yéen tey war a dëppook suñu vingt sixième nuit di Ramadan vingt sixième nuit di Ramadan leen ci fas yéene indi rek mook vingt septième bi ba ci vingt neuvième jàpp trentième nuit bi dañu fas yéene waxtaanee lu jëm ci diggante mburum koor ak sunnas feetu korité su ko defee tey dañuy ubbee suñu vingt-sixième nuit wi ci mbuurum koor su fekkee lépp ñëw na xayrun su lépp ñëwul ñu jagleel ko beneen statut incha allah ñu leen di xamal ni mbuurum koor ci suñu mazhab ñun mazhab imam malik ndax mazahib yi dafa bari te am nañu ay uute ci atte yi waaye bu ñu waxee mazhab imam malik ni suñu mazhab liñ ci jublu mooy ku ne xam na ni Sénégal kilifa yi fi ràññeeku ci ñi doon xeexal diine te bay ci seen wàll te consacré seen dund gépp ci diine yi mën a tasaaroo ci lislaam euh, ñoom ñëpp ci mazhab imam malik la ñu tënku woon buñ ci tuddee as sidi haaji malik si radiallahu anhu ci mazhab imam malik ci la tënku woon cheikh ahmad bamba xadim rasul radiallahu anhu moom it euh, ci mazhab imam malik la tënku woon alaaji ablaay ñas ca Kaolack ci bi imam Malik la tënku woon dégg ba ci maam li maamu laay fii ci ndakaaru dégg nga ñoom ñëpp ba ci suñu maam Ndari Seck ci Canaba ñoom ñëpp kenn koo jël daal ci senegal ci ma mazhab imam Malik la ñu tënku woon te kilifa yooyu ma tudd ñëpp bu ñu génnee ñi ñu yilif ci Sénégal la cay des moom dootul des dix pour cent xanaa quatre-vingt et quelques pour yëpp. ci ñooñu la ñu aju mazhab bi ma Maalik boobu nag dafa def sunna mu akkada muy sunna suñu feddali moom la def li ñuy tudde muurum koor am sunna suñu feddali ma sunna soo xam ki ko man da ko war a def da ko war a def nekkul loo xam ne dalay neex nga def mu mu ñàkk laa neex nga bàyyi déedéet sunna mu akkada la képp koo xam ne nii boroom kër nga te yilif ak njaboot te di leen dundal Euh, li jaadu mooy nga génne muurum koor muurum koor nag baat bi ci wolof muur dafay uuteeg baat bi ci arab parce que bu dee ci baat bi ci arab ñu ngi koy tudde zakatul fitre muy azakay dog azakay dog lay tudd boo ko firee moo taamu ci ci ci ci ci baat bi azakay dog waaye bu dee ci olof dañuy wax muurum koor xëy na liñ ci jublu mooy muur la moo xam ni ki ko génne am na muur moo xam ne nii su ko génnewul woon du ko am te loolu it yenn na maanaa ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni muurum koor dafay purifier day setal day sellal tey day taskiya aji woor ji ci bàkkaar yu sew sewaan yi ak jëf yi nga xam ni jëfi doya di la woon ci koor gi te tere woon ko ko te mu nekk loo xam naqari naa mucc waaye seytaane man ko ak bakkanam ba def ko ci biir koor gi muurum koor da koy setal ba bu koor gi di yéeg ci yàlla day yégaale ak mat ak sell ak lépp loo xam ne nii yàlla bëgg na ko ci ci koor gi kon muy lu am am solo loo xam ne ni jullit bu nekk war na cee taxaw ki ko war a génne nag mooy ki nga xam ne nii dafa yilif ak njaboot wala ki nga xam ne majeur na am liggéeyam waaw ah, ki nga xam dafa yilif ak njaboot mooy génne muurum koor ñi koy génneel mooy képp koo xam ne ni ab dundam moom la war xataa sax ba ci yaayam bu fekkee dundam moom la war moom moo war a dundal yaayam su ma waxee dundam moom la war nag mooy ni ñu ko xamee ci senegal dund familial bi ñuy def nga yor kër gere ko di dundal say rakk ak say mag ak sa yaay et cetera képp koo xam nag bu boobaa dépense bi ngay joxe ci lay dund bu boobaa yow boo amee muurum koor yow yaa ko war a génneel yaa ko war a génneel ba ci xale bi juddu tey ñun la tey sa soxna diw am na doom wala sa doom diw te sa doom jooju mën a boppam dara am na doom te yaa ko yor ci kër gi wala sax sa surga diw euh, ñu baat ma ci baat bi muy jànq bi liggéey ci kër gi te féete ci kër gi sax te nga yor dundam ñu ni la moom jëlale naa ko waaye moom am na doom sax te mi ngi ci kër gi doom jooju ñoom ñëpp yow yaa leen war a génneel muurum koor naka lañ koy génnee nañ ko jagleel incha allahu taala euh, ci vingt-septième nuit bi incha allahu taala dinañ indi détails yi ci aju naka lañ koy de génne ak kañ lañ koy génne ak boo ko génnee nag lan moo la cay xaar ci ay ngëneel bu ko defee suñu vingt sixième nuit cinq vingt cinq ci la ñuy arrêté xëdd waaye dix neuf heures vingt trois ci la ñuy euh, ndogu incha allahu taala ñi féete Dakar dañuy yokk six minutes ci heure boobu nga xam ne heure Touba la ñi féete Thiès quatre minutes ñi nga xam ne ñoo féete Fatick Kaolack ak Ziguinchor. ba Sédhiou ba Kaffrine ñoom ñëpp deux minutes la ñu yokk jurbel une minute lay yokk ñi nga xam ñooy jiitu Touba war a moyen mooy Tambacounda ak Kédougou huit minutes la ñuy wàññi moom la ñuy jiitoo Touba maanaam Kolda ak Matam cinq minutes Louga ak Saint-Louis deux minutes su ko defee ñu dikk ak yéen ci suñu vingt sixième nuit ci Ramadan naafila yi vingt sixième nuit bi dix raka lay doon. rakka bu ci nekk da ngay jàng suuratul fatiha benn yoon teg ci suuratul qaari'a benn yoon te mooy alqaari'atu mal qaari'a ba mu jeex suuratul ixlaas muy qul wallahu ahad moom it nga jàng ko cinq fois rakka bu ci nekk rek noonu lay dobe suuratul qaari'a benn yoon suuratul ixlaas cinq fois ñu jox leen dig daje ci suñu vingt-septième nuit ci statut di Ramadan wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.